ينقلها بلا asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi nuyu bokk yëpp di jiital fi nuyu Sëriñ Tuubaa Cheikh Mamadou Muntaxa di ñaan suñu borom yàggal ko fi tamay ko wér di nuyu bu baax sëriñ Amdi Modou Mbène Fall ñi nga xamante ni mooy maam Cheikh Ibrahima Fall ci kaw suuf wante it di ñaanal bu baax sëñ Cheikh Jëmb Fall ndax lii biñ koy samp fii ci ndigalam la ak ñaanam mu boole ñëw doom yu baax ñii di sëñ Fall kon ñu koy ñaanal bu baax suñu borom doon koy leer doon koy màqam fu mu tëdd ak mbokkam ñu boole leen ñaanal ñun ñëpp ñu nuyu suñu kilifa bu baax gii di sëñ Saliou Fatou Sow toog di jëmmi maam Cheikh Ibrahima Fall ci jataay bi di nuyu bu baax sëriñ Mor Talla Fall ñu koy nuyu bu baax di ko jox wàcc waayam di nuyu sëñ Fallou mboolem njaboot nuyu sëñ Fallou Cheikh di mboole mboolem njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall góor ak jigéen mag ak ndaw di sant yàlla bu baax na bu baax a baax di dellu it di santaat yàlla ginnaaw bi ñu boole Cheikh Modou Bamba Xaadimu Rasuul ñu nuyu kilifa dëkk meeru Mbàkke di ko jaarale ci turu sëñ Abdou Lahad Fall ak sëriñ Fay ñu ko fi toogal di nuyu ki nga xam ne moo fi toogal médecin chef bu Mbàkke docteur Dieye ñu ngi lay nuyu nuyu tamit Matar Sarr mi nga xamante ni moom équipe bi mu àndal ñoom magee ñëpp nga xam ñoom ñoo jiite CDS wante di nuyu tamit soxna Ramatulaay Li mi représenté ICP bi ak mbooleem ñu àndal liggéey bi fii ci biir poste de santé ñi nuyu soxna maam Jaara Njaay mi nga xamante moom it moo fi toogal ki nga xamante ni mooy bàjjenu ba wante tamit di sant mbooloo mi nga xamante ni ñoom la àndal ci liggéey bi ba mu agsi fii su mu tuddee Mor Sow ak Lamine Diop rek ak tudd naa ñëpp ñi nga xamante ñu ànd liggéey bi ba agsi fii kon sëriñ bi ñu ñëw tey jébbal la ambulance bi mu ànd ak groupe électrogène ndax lépp ci liggéey sëñ Tuubaa man sëñ Tuubaa moom ci ci laay yëngu guddi bëccëg tey ci laa fas yéene yëngu it ba keroog ma wuyu sama borom fii it li waral ñu defoon fi poste de santé bi dafa doonoon lu yell lu war wante it jëleen yéene lal ko ngir maam Cheikh li ko sëñ Touba jaral ma jàpp ne même bu ma doon toon maire sax te bu sëñ Touba ñëwul woon jamono dama dikk man ma jàpp na man it la la ko sëriñ bi jaral ba teg sëñ bi fa mu ko teg ba defal ko lam ko def ba sëñ bi defal ko lam ko def man war naa wëlbatiku may jéem a lu bokk ñi sagal maam Cheikh ñi koy jéem a fay kon du ay mbiri mairie déedéet mbiri sëñ Touba la ndax Touba ak Mbàkke dëkk sëñ Touba la sëñ ko moom ñi fi nekk di ay taalibeem kon sama ngëm-ngëm rek mooy li may am ci sëñ bi dama koy delloo ci sëñ bi ndax mooy sama intérêt looloo tax jëf jii bañ ko ubbee laa waxoon ne insha allah rabbi dinaa ko lii ma gis ne it courant bi li muy coupé daa bëri te it léeg-léeg ci faj mi dañuy soxla courant ñu nañ ci boole groupe bu 5 boo xam dana mën a taal climatiseur dana mën a taal congélateur wante dana mën a taal lamp ak li ñu fiy soxla moo tax sëriñ bi ñu indi ko teg ko ci sa loxo nga tegal ñu ko ci loxo la xalifa général sëñ Fallou sëñ yi dama la koy jox nga tegal ma ci loxol sëñ Saliou Fall Euh, ni Baye Fall di doxe ci liggéey Sëñ Tuubaa lu ñu war a jàngale la ba tax na jàpp na ne maternité sëñ bi warut a mën a taxaw buñ gàmmoo ba pare dina andi ciment dina andi fer dina andi fer bu boobaa ñu defar plan jàpp naa ne ni ñu liggéeyee màggale ni ñu liggéeyee kër Sëñ Tuubaa jàpp naa ne buñ fekkee semaine bu nañ mayee ci ñaari xëy balaa yàgg dana sotti siñ jàpp naa ne bu bu jumtukaay yi teewee bu ci Baay Faal yi xëye balaa mat weer wala ñaari weer dana sotti ma ne la ciy dem ci ciment ak fer ak xeer ak karo ak peinture ak bunt lépp naa ko jox góor a déggoon tey Matar ak Baye màggat mi nga xamante mooy délégué de quartier bi ñu waxtaan ak médecin chef bi defar plan bi wan leen su leen juboo suñ gàmmoo bu pare man la cee dem dinaa indi ñu tàmbali ñu soobee suñu borom balaa yàgg ñu pare loolu lépp da dañ nañ ko dugalaat ci liggéey Sëñ Tuubaa bi ndax ñun li ñu am du politique moo ñu koy may Sëñ Tuubaa ñu koy may liñ bëgg it sëñ Tuubaa moo xam te li sëñ Saaliu Mbàkke waxoon moom du ñaan koy jeexal buy ñaan day ñaan ki dul jeexal muy yàlla yàlla mi nga xamante du jeexal nag te boole ñu sëñ Tuubaa moom ngir jox ko suñu borom ba du jeexal ñoom ñëpp foofu lañ kon nag maa ngi dolli di sant yàlla du nuyu mbooloo mépp di xam ne oto baa ngi nii dinaa leen boole tamit ku wax moor mécanicien fii la ne soriwul mu leen defal entretien bi soobu yàlla dinaa leneen lu ma mën dinaa ci jàpp saa su ngeen demee ba mu laaj beneen liggéey lu loolu lu ci war a defar ñëw leen dinaa ko def nañ fonk entretien bi rek ñu jëm suñ ko wax loolu daal mooy kàddu yi gudd na ndax sax war moo wax ndax kër maam Cheikh Ibrahima Fall amul wax jëf la am jëf jël kon nag maa ngi wàcce kàddu yi foofu di sant bokk yëpp di gërëm bokk yëpp wasalaatu wasalaamu ala rasulillah jërëjëf yëpp sëriñ bi sëriñ am ni Modou Mbène ndax moom lañ fi teewal moo moo ko fi sant Fall te teew fi rek sëriñ bi nga fi teewal ñoo ngi nuyu ñëpp euh, sëriñ Abdou Mbacke Ndaw ñu ngi lay fay nuyoo sëñ <coughs> baa ngi lay fay nuyoo ñu ngi lay sant ñu ngi lay gërëm ñu ngi lay ñaanal ci jëf yi ngay jëf te di ko jëfal Cheikh Ibrahima ndax post bi rek dafa doy sëkk jëf waaye taxul nga baax sëriñ bi doon wax léegi ni ba nga nekkee maire waaye yow maire taxul di jëf su la taxoon di jëf <coughs> kon lii nga def doo ko def loolu nga wax ni sëriñ Dema tax di jëf rek moo la tax di jëf te loolu xam nañ ci lu bari njabootu maam si xebre gi nag ñun ñëpp war na laa delloo njukkal ndax nit ku ne ka bëgg ka bëgg war na koo bëgg te sëñ Abdou Mbacke mi bëgg Cheikh Ibrahima moo tax muy jëf ci moom jëf jii muy jëf xamit ne bëggu Cheikh Ibrahima bëgg Serigne Touba looloo tax muy jaar si ci moom ngir bëgg am ci li ko Serigne bi defal. kon ñun ñi nga xam ne dañ fee nekkal Cheikh Ibra bokk ci deret ji ak ñi nga xam ne dañoo ñàkku si di taalibe ñun ñëpp war nañ ko delloo njukkal njukkal nag weesul mënaluñ ko dara waaye nañ ko ñaanal ci Cheikh Ibra mi ne am lu dul moom la bëgg moo ko xam yal na la gën ci moom yal nekk ko sëriñ bi defal ci barke Cheikh Ibra bi tax mu def am nañ mbégte lool ci yow ndax ku jaar nga fi te lii amulu ko nga amal nu ko ba noppi tudde ko maam Seynabou Ndiaye loolu rek dafa doy damay wax bis bu ne ku fi ñëw dama leen naan parce que leen fa faju ji ndax tur yi jar na di fa def di faju ji ak ka yor poste bi nga xam ne moo ko jëkk seere di soxna jaara kon fekkee ni sunu dëgg la waru na ko ñu romb di faj ci fenn ma ku ma déggal doo ko romb ndax lu ne mën naa ne ci biir kon sëriñ Abdou Mbacke donc yëpp a ngi lay sant di la ñaanal di la gërëm ci sa jëf lii nga nu ci dolleel itam nga xam ne guddi léeg-léeg malaat day am boo xam ne bii nii euh, na matuwaay yi ca war nekkagul fii ci poste bi kon day jar ñu teg ko ci dara jàllale ko te léeg-léeg man ngaa téléphoné Mbàkke dispensaire ba lu libre lu mën a ñëw jël si kooku lu fa nekk si yi day am waxtoo xam ne yéen mën nga leen a boo amul seen numéro sax mën nga leen a bañ bañ a jot nga indil lu lii nga nu indil nga xam ne boobu jafe-jafe moom saafara woon na xanaa leneen la ñuy wax. kon ñu ngi lay sant ñu ngi lay gërëm waaye sant yi gërëm yi yëpp kat ci sëñ bi la bàyyi ko ndax moom moo la sañ sant moo gërëm moo la sañ ñaanal waaye nu it dañuy sàkk ci li li mu yor rek ndax moom la ñu am ñaanal la ci fa nga bëgg yegg yàlla na nga fa yegg ci barke Cheikh na am nañ ci yow mbégte lool li la war a nag mooy moom itam ak bëggam na doon suñu bëgg fu nu ko déggee na doon suñu bëgg nit kat day gore te noonu nanga mu gën noo gore ndax jëfam jiimu jëf war naa tax bu dul woon jàpp ko waaye bu dul bu dul woon jëf ci sax fi mu soqi ko dafay jar mu jàpp ko ak suñu fukki loxo kon ñun ñii noo ci des waaye moom wàcc na dama ko ni poste bi day yéex na nu koo am waaye ni nu ko amee moo gënal ki nga ko tudde muy Seex Ibra ndax lu laal ci Sëriñ Tuubaa moo gënal Seex Ibra lu ci moom te yow ci Seex Ibra nga ci Sëriñ Bàmba nga bàyyi ko ndax sa wujju jigéen sëñ Tuubaa yëpp maa moom kon ñu ngi lay sant di la gërëm amoon waaye sëñ bi nga xam ne daal noonu amuñu lu dul moom moom nga defal lii noo ngi ñaan ci barkeem li nga bëgg te muy la gën ci yow yàlla nañ la ko defal ci barkeem Cheikh Ibrahima waaw mu ne nag déggeen loolu boobu boobu fexe leen nag boobu nu gën a gore rek fu ñu fi dégg ak bëgg soxlaan nañ ca taxaw ndax moom kat lim man def na ko lim man def na ko de te Cheikh Ibra tax mu def ko ñii fi ne bu leen di weesu poste bi dee leen ci ñëw di di fajoo si poste maam say da bu kër si sëñ bi mën naa ngaa ko fini mën naa ngaa ko fini muy doon jërëjëf di jërëjëf jërëjëf daal di daal an an borom borom kii waaw. nañ arrêté nañ arrêté booy nañ arrêté parce que am espace. léegi mu melal léegi lool man. waaw. ana pièces yi pièces yi. waaw waaw. di nga sëñ Ba di nga ñàkk. di nga ñàkk. sëñ bi ma gëddaw sant ñu ko ameel sëñ Sall bu si wax na ko sarafal rek moo ko mën a moo ko mën a sant waaye ñu nga xam ne ay dogal lan te seere jëmam bu bi nga xam ne amul mooy moom mu ndigalal sëñ Tuubaa fii ci daara ji ko fa jëfam bu reyoon tey waroon du mel ne ne mel ne jëfam ko du mel mbaa ci la bokk li mu defal Serapal tam poste bi noonu la ko defal ndax noonu ñëwaat nooy fayu si suñu ñëwaatee fayu si waaye li ñu daal di wax nag noonu taxaw ba ñëwaat di fayu si fii lu ñu a faj ñoom dañ ko jàllale ñoom waaye ñu wutal la alal joon yi ba noppi jàppoo ko loolu day mel ni ko soxla wut li ñuy wutal kat yitte woon nañ ko lool waaye nag bi ñu ko wutalee nag na ko téye nag nañ téye poste bi téye ñu fi liggéey te di faju si la yaay sama borom yàlla wéral ñu faju si ñëpp di wér gi néew nag ba ba ba rek moom nu mën a gën a liggéey suñu baax suñu mbàkk jërëjëf xolam mu yëpp seet nañ ñaan nga yàgg loolu te wér nga bëgg sama borom mën na ko yàlla ko defal barke sëñ Tuubaa sëñ Saliou ñaanal tàllal seen tàllal seen loxo mu yàgg tàllal leen loxo yi tàllal leen loxo yi